kaaf seeni géey ak ndombu tànk yoof yëpp ak imam Maktar ak chef de village yeeg jaraaf yeeg saltige yi jóge cent vingt et yi si seen ndigal lañuy ñuy amee les journées de prière et culturelles à Yoff ren jii di nekk treizième année bi ah, buñ ko defee ñun collectivité lébu war nañ sant yàlla lii ñu war sant yàlla mooy lébu yi ay ndey lañ bépp communauté boo xam ne yaa ngi ci Sénégal am na lu ñu bokk ak yow moo tax damay dégg le grand serigne di Dakar muy wax Abdoulaye Matar Diop Dakar ku fi yeewoo rek may sa sëriñ Dakar ku fi jàll sax di tukki may sa sëriñ Dakar loolu yaatu moo tax mu wax ko ak ñu sant yàlla parce que mbir boo koy def benn ba mu am fukki at ak ñett war nga sant yàlla sant say wayjur sant say kilifa ñaanal leen ñoom ñi nga xam ne ñoo jiitu yàlla yokk leen leer dinañ ci wax sunu kilifa Babacar Mbeng moom mi nga xam ne dixième édition bi amoon na presque quatre-vingt-dix ans dafa wax ak njabootam jàpp leen ma ma dem si cérémonie ba seedeel sama rakk yàlla na ko yàlla yokk leer fa mu tëdd man maa ngi sant yàlla parce que lu ma woote rek ñëpp ñëw si jàpp si kon man mënumaa fay ñii nga xam ne woo naa leen ñu ñëw uyse ma lim bi nag dina metti parce que man lu ma dugg rekk ñu bari dugal ci seen loxo kon bu ma limee dina metti ci man képp kuy ndombu tànk maa ngi jaar ci grand sëriñ ndombu tànk yi ci jàpp yépp maa ngi leen di sant di leen ñaanal bépp ñaan walla bépp yiw buñ ci am yàlla nañ ko bokk bu wàllu imaam yi maa ngi jaar si imam Alioune Moussa mu jaare si imam Mohamed jaare si imam Matar Laay grand sëriñ li tax ma wax imam Matar Laay saa yu ñu waree démarrer kaamil yi imam Pape Samba daf may wax ne comme yoof lay amee na dem yëgal ko ko ñu ànd ak ñoom cheikh ji bi dem yëgal ko vraiment mu wax si wax ju rafet a rafet ne bépp gan buy jóge biti yoof di dal sa yoof ganu maam li maam lañ yékki alal jox ma ne ma jëndal leen ci ndox ax ah, lu ñu añee kooku grand sëriñ maa ngi lay kay biral di sant maire de yoof maa ngi koy sant di ko ñaanal xale la yàlla na ko yàlla lafal cet te mottali yoonam di sant le DG Pape Mao Diouf wax dëgg yàlla ku baax la yàlla ñu boole jàpp na si taxaw na si sant ami ami ami sant naa tamit Annette Seck mais damay mujjee si Abdoulaye Diouf saa yàlla na yàlla fay moom it depuis ñu di ko def loxaam masu ci jóg Abdoulaye yàlla na yàlla fay yàlla yokk sa sutura li ngay yëngatu si politique yal na la yàlla dolli ndombu tànk yu gën a kawe ah, ah. bés bi nag dañ ko tuddee Yves Lamine Ciss man dama wax ne war naa sant yàlla sant samay kilifa bi ñu defee choix ci moom grand sëriñ lu rafet la ci teg waxuma sax lu tax dane ma rafet na def leen pourtant bu ne ma woon ah rek ma arrière mais dane ma rafet na def leen imam ratib wax loolu dignitaire yëpp wax loolu Yves lu tax ñu di ko sant foogoon nañ ne waa Joal biñ fi jógee keneen du def lu ëpp li ñu def waaye Yves Yves def na ba def lu ëpp dinaa si ñëw léegi Yaxya de daaw def na lu rëy rëy ci biir mbokku lébam bu ma laa wax Yves li mu def dafa am l'ancien maire de Yène muy président conseil d'administration Safruy muy sama lépp di sama wóllëre góor gi di ku baax di ku simple di ku am yéene ci collectivité bi góor gi yàlla yàlla yokk sa sutura jox la ndombu tànk yu kawee kawe yéen bu seen bu tànk kawe rek li may def dina gën a baax parce que li may def alal ju bari la laaj ju bari bari la laaj waaye li tax duma sonn yéen yéen a tax yéen ak ñoom Ablaye Diouf Sarr ak Annette Seck grand sëriñ Annette wax dëgg yàlla nuyu na la mais gis na bi mu bi bi nga ñaanalee ba léegi ak collectivité lébu dafay gën a yëkkateku yóbbante boobu la wax ne na nga na nga ñu santal grand sëriñ boobu ba léegi maa ngi gën a yëkkateku journée bi nag Yves Lamine daf si def lu rëy moom daal nit ku baax la parce que biñ ko tuddee journée bi. dañu dem ci turu collectivité lébu mu recevoir ñu dalal ñu teral mais liy yéem ci mbiram depuis ñu tàmbali organisation bi grand sëriñ chaque jour ay ndawam jóge Morola ñëw fekk ñu yow amul bés boo xam ne ay ndawam du ñu jóge Morola fekk ñu yow bu ñu ñëwul daaw de combaan bi taxaw nii dëkk fii si Yoff nekk conseiller municipal municipal foofu bu ñooñu ñëwul rek daaw daa koy teewal mais mu def si lu am solo yónni fi ay ndaw fu ñuy dalal fu ñuy defee cérémonie bi da nga dem sax ba am kersa ñu naan déet démb grand mu yónni ay ndaw ma foogoon ne sax dañuy fanaanse mais mu yëkki alal ju bare bare mënuma kaa lim ju bari alal ju bari la yëg teg ko si loxo comité d'organisation biñ koy recevoir ñoom Cheikh Jibeek prince ak ñépp ñu ngi fi alal ju bari ah vraiment ma dama mujj am kersa parce que tuddeew ñu ko bés tuddeew ñu kenn bés pour nga nañu jox seen alal organisateurs yi ñu ngi nii chaque jour moo wax leen ne lii ñuy def du bitig mbagg defuñu ko pour ut xaalis buñ ko defoon utukaayu xaalis duñu mën a yegg treizième édition yàlla lañ si jiital moo tax buñ ko jàppee noo def yàlla ñëw ak mbiram kon ñu ngi sant ñëpp di wax ne li ñu dëgmal sous préfet wax naka ñu ngi koy nuyu bu baax le sous préfet maa ngi jéggalu yow lañu war jiital si taxawaay bi nga def suñu wet si ndigalu gouverneur de dakaar na nga ñu ko santal grand sëriñ gouverneur ku baax la nee na ma fan yële bi ndakaaru yëngoo dafa am ku ko wax ne que mais yow doo jënd nag bu xonq nga jox ko sa mbokku lébu yi comme yaa yilif région de Dakar yónnee na fi nag ne comme maa yilif ndakaaru yéen lébu yi na ngeen ma yéene waale si ñaan ma wax la ko yow comme yaay kilifa collectivité bi ñu sant yàlla thème bi mooy ñu ñu ñu séqante jàmm rek ñu séqante jàmm Ablaye Diouf mu ngi nii toog Ami Toob mu ngi toog maire de Morolan mu ngi toog ñooñu ñëpp Benno Bokk Yaakaar lañu bokk ak Pape Mao ak maire Yves Lamine waaye monsieur le maire mu ngi bokk taxawu Sénégal moo Aminata Dieng waa baax na politique ñëpp mënuñoo ànd fépp mënuñoo ànd si benn boor dafa am ñuy ànd fii am luy ànd fii élection yi jëm nag Macky Sall ñu ngi koy ñaan mu dem si jàmm ak sutura taxawu na collectivité bi jàppale na leen parce que man miy wax conseil coutumier la ak samay naatangoo jaare si grand sëriñ ak toutes les dignitaires jox ñu conseil coutumier kon ñu ngi koy sant le maire de Kayar xam ne sama yaay fa la dëkk bi ma faloo gars yi dañ ma doon tooñ quoi ne yaayam kaayaar la jóge dël dëkk jaraaf mboor ndooy fii la jóge dem sanc kaayaar sama yaay di sama jarbaatu yaay moo tax sama bàyyi mën a ne saldige ma mën a nekk saldige fii yoof néegu ndey lay fale waaw te dama leen wax ne biñ may tooñ xam nga lébu dafa xaw a njaboor saasaa ma ne leen feex fukki at laa leen di tontu ndomb gi ma doon na si ma Diouf première saltige Yoff 1748 bi Yoff di xare moo jiite woon xare biñ may jox ndomb gi ndomb gi transité na fu nekk Grand Serigne dem na sax Londres biñ may fale ndomb gi mu ngi Londres an caatam bay bay da ndomb gi fu ko waay nëbb mu dem jëli ka moo tax caat yi caat yi daal wóoluwuma leen Grand Serigne ndomb gi fuñ ko nëbb mu dem jëli ka bi muy tukki Londres da def si walisam yóbbu ko Londres ma falu ndomb gi war a jóge Londres ñëw mu jël métro la xaw ma métro bi paan pour ndomb gi ñëw Sénégal rek fu ne jaar na fa pour àndiko ba ma falu mu wàcc Sénégal fi avion ma falu mu jox ma ndomb gi maa doon na ma njallu Juuf maa doon na Mbayda maa doon na ma njallu maa doon na Mbayda maa na ma njallu doon na Mbayda maa ngi sant ñëpp di ñaanal ñëpp di sant Pélé sama mag maam Alsaan Ceerno samay mag maa ngi leen di sant di ñaanal ñëpp Mandiallo Diouf maa ko doon na Bayda maa ko doon na bi ma faloo Thierno dafa wax dañu def état des lieux famille cinq heures du matin ñu dugg suñu xàmba yi cinq heures def examen Thierno Diallo jagaas jàll kàllidu tamit dafa bare affaire sama mag la si moom laa topp dafa bare affaire su ma bàyyi masul nangu ñu teqal ko boo ko gis seetee fii doo ko gis nëbbu na bu yegg moo yoroon ndaal di yëngal xam nga reen yi bu ñu tàllee dañu am lu ñuy wax reen yi bu ñu diigee dañu am la wax reen yi bu ñu taxawee dafa am lu ñuy wax mais bi ma ñëwee ñu wóor ndaal reen yëpp dañu wër benn reen taxaw si digg bi mu ne ma sawaay ndomba gi yàq moom ana kàllidu sama ndomba la maa ngi sant ñëpp di ñaanal journée yi yàlla nañ ko def at yu bari ñu ngi nuyu Mansour Faye di ko ñaanal ak soxnam vraiment seet se nañu jàpp ci journée yi Issa ñu ngay ñaanal nekkoon nag ñun defal nañ ko hommage waa saf ñeex nag mënuma leen a fay jaa ngeen jëf da jël gaal tudde ma ko te dama koy ngénte ah dangaa sëriñ Gorgui Ciss maire Ablaye Diouf gaal gi dinaa ko ngénte te maa ngi leen di ñaan bu ma koy ngénte yéen ñëpp ngeen yónnee ma seen ndawtal salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa di jiite ci nuyoo bi son excellence monsieur Matar Diop Ablaye Matar Diop grand serigne de Dakar un grand commis de l'État du Sénégal rekkoon na bu ñu nekkee xale mu nekkoon ministre des sports jaar ci ministère yu bari bokkoon nañu ci fans club maa ngi nuyu sama xarit sama nijaay ndax sama yaay mbeng la sant sama soxna aussi mbeng la sant kon yow sama nijaay nga sama goro nga maa ngi lay gërëm bu baax a baax di la sant mais à travers yow ma nuyu bépp kilifa ci cent vingt et un village lébu yi muy jaraaf yi muy saltige yi muy ndey ji réew yi ma nuyu aussi le sous-préfet représentant le gouverneur vous direz à monsieur le gouverneur yàggoon nañu xam ni moom day nekk gouverneur ndax bu muy nekk adjoint au gouverneur AA à Thiès Il était un très bon adjoint au gouverneur. On s'attendait à ce qu'il soit gouverneur il l'est il ngi koy ñaanal yàlla mu gën a jëm kanam yow tamit yi ko représenté ñu ngi lay nuyu ñu ngi nuyu aussi tous les élus élus au niveau national honorable député Aminata Dieng mais aussi sama xarit sama collègue Ami Top ñoo nekk ensemble au conseil des collectivités territoriales mais ma nuyu aussi maire yi maireu yéen maireu yéen mais aussi maireu Yoff yi xam ni moo ma dalal tey madame la l'honorable députée vous direz à monsieur le maire je suis satisfait très content de l'accueil na ko yàlla jàppale liggéey bu mu nekk mu gën a jëm kanam ma nuyu ñëpp ñi fi teew waa Yoff waa Wakaam waa Ngor mais aussi waa Lébu yi yëpp maa ngi leen di nuyu di gërëm aussi les gërëm aussi waa Morlan mais di nuyu aussi le ministre di ma wax directeur damay wax ministre Abdoulaye Diouf Sarr dama ndax damay ñaanaat nga nekkaat direct ministre donc ñaar ñaan loolu ma nuyu vraiment aussi le directeur Pape Mawa ñëwoon na fii en tout cas maa ngi gërëm ñëpp rawatina nekk saltige Mbeg liñ fi wax tey yow dañ lay ñaanal yàlla nee nañu doomu ñey diñ ko ñaanal lan rëy dañ koy ñaanal gudd fan kon yow nañ la ñaanal gudd fan jërëjëf vraiment kontaan na ci invitation bi damay wax rek ni ndeng lu mu def nii dafay yokk duggante askan yi dafa am li nga def nii waa ndut ñëw fii daje ak léju lébu yi fii aussi yoof ñu fekk fii ay ndut yu bari fii bari naa fa ay mbokk am na koo xam ne sax ñoo juddoo même kër même at gis naa ko sànq donc pour man ñu ñaan yàlla lii continuer dafa war a dem ci ay jumelage lii dañu war a wéy peut-être ñu dem ci ay jumelage entre ndut yi ak lébu yi comme ça gëstu bi ñu ñaan étudiants yi ñu gën a gëstu lii di histoire ndut yi ak lébu yi ndax yaay une histoire qui ndax bu ñu nee yookam am na fële am na fii ñun ñu nee yuut man clan yuut laa bokk te am na fi kon boog am na loo xam ni dans l'histoire ça c'est am am na mais peut-être jotuñu ko maîtriser ma gërëm aussi les artistes de Morolan à leur tête Jean mais aussi tous les artistes waa Ouni Oule waa Ndiaye Bopp mais aussi Moussa Pallo Pape Samba mais aussi tambour major bi ma gërëm leen mais aussi dégg naa fi aussi les les ñii dégg maanaam pour les lébu yi waa Ndawra bin maa ngi leen di nuyu di leen gërëm li ngeen di def jàppaleen si loolu mooy tax suñu histoire du jeex bu ñu bàyyee suñu histoire lan la ñuy jàpp bu ñu bàyyee suñu coosaan dañuy jàpp coosaanu jaamur et Senghor a di la culture est au début et à la fin de tout développement kon nañu góorgóorlu nu téye suñu aada ak suñu coosaan suñ ko téyee suñu doom yi dinañu gën a jàpp ci loolu dinañ gën a jàng ci loolu ñu wéyal ko en tout cas kontaan na ma ñaan yàlla rek lu ñu def nii na am vingtième ba centième édition ñi koy fekkee fekkee ko ma sama message def naa def nañu ay message monsieur le ministre def na ko sama message mooy ci élection yii nañu ñaan jàmm nañu wax jàmm nañu dox jàmm nañu nañu aussi waxante jàmm lépp lu ñuy def na nekk jàmm ma ngërëm ci may mujjee foofu lay ma ngërëm magu Morna yi ma gungee muy ci góor muy ci jigéen vraiment mag yi maa ngi di gërëm kii nii sama papa la kii nii taaw sama papa am na ñeneen soo maa gën a ñu ngi lay gërëm c'est le gardien du temple gis naa ci Moussa Cissé moom mooy wax woote ci rajo yi di xeexal Morlan Moussa Cissé Morlan maa lay gërëm ma gërëm yéen Adama Touré yéen ñi xam ne yéen yéen affaire yi vraiment gërëm naa ñëpp xel day fatu ma sañoon ma lii ñëpp dëgg la mais mënu ma mais maa ngi gërëm ñëpp encore mbéy une fois maa ngi lay gërëm Seydina Issa Laye moom aussi moom gërëm naa ko yo yónni naa maire bi maanaam mu gërëm ko mais am naa beneen collègue ACCD Issa Laye mm-hmm. maa ngi koy nuyu gis ma ko fii mais maa koy nuyu voilà kon kon loolu laa amoon di mooy wax ngeen baal ma ak la presse ñu ngi leen di gërëm aussi ñu ngi leen di gërëm yéen a ngi def seen liggéey mais jàmm bi ci élection yi yéen ci ngeen bokk tous les acteurs doivent travailler ensemble pour que le 25 mars que nit ñi dem liggéey yi ñëwaat je pense la amoon ni may wax ngeen baal ma ak jàngeen bi